mbokk yi dal leen ak jàmm ñu indil leen ay leeral ci mariage bi dox ci diggante actrice bi di Racky Aïdara ak joueur footballeur bi di wuyoo ci turu Babacar Gueye tey évoluer foofee ca Paderborn di ab équipe bu nekk foofee ca Allemagne ay bis yi ñu génne nag gisoon nañ ab rumeur bu doon daw ci réseaux sociaux yi doon wax ni diggante actrice bi di Racky Aïdara ak footballeur bi di Babacar Gueye sëy ba doxoon seen diggante tas na waaye ay heure rek ginnaaw bi nga xamante ni boobu le rumeur waroon réseaux sociaux yi ki nga xamante ni moo di borom këru Racky Aidara di Babacar Gueye génnoon na def démenti bi ci réseaux sociaux yi waaye loolu doyul ndax kat ay site yu internet yu bari bari ay ay internautes yu bari bari jotoon nañ ko partager ñeneen ñi sax demoon ba gëm ko waaye nag bile yoon ki nga xamante ni moo di soxnaam di Racky Aidara moom moo génnaat ci réseaux sociaux yi ca page Instagram am daat ci indi ay leeral bu baax a baax sans gêne sans complexe moom actrice bi di Racky a jot xamante ni ñoo ngi koy fëlaw si Instagram bi posé nañ ko te jëm ci mariage am bu nga ni moom ak footballeur di Babacar Gueye lu ak ki nga xamante ni moo di borom këram di Babacar Gueye te ñaanu ko yàlla beneen mbir boo xamante ni ki nga xamante ni moo di Racky Aïdara xamle na ko moo di bu fekkee moom géré wut mariage bi nga xamante ni dox na ci digganteem ak Babacar Gueye kon du nekk góor ndax kat dafa bokk ci famille bu baax famille boo xamante ni ay sëykat lañu ci geneen wàll ga nag internet yi ñoom ci boppam félicité nañ leen encouragé leen te ñaax ñu gën a fonk seen sëy waaye tamit mooy tondikoo réseaux sociaux yi bu baax a baax ndax kat lu bëri fii la yàqoo fii la ñuy yem ak yéen jërë ngeen jëf